Karim Wade ñu daal di ko écarté mu bañ a bokk ci élection présidentielle du 25 février mu nekk pilil boo xamante ne neexut a wan libéraux yu nekk fii ci département bu Pikine li ñu bëgg rek moo ñu dakkal élection yi nga xamante ne ay semaine moo des ñi daal ko amal. loolu wax nañ ko à l'Assemblée wax nañ ko partout parce que Karim Wade mun élection mënuñu ko organiser ci réew mi te Karim Wade bokk ci parce que dafa war a bokk. pour quoi parce que dañ nekk Reval dafa am double national mais balaa cette saa yi di di délibéré le mais jot nañ ay jumtuwaay ay këyit yi nga xam ne war na ne kii nekkatu ko. libéraux yi yemuñu ca ñu ngi contesté crédibilité conseil constitutionnel ba noppi di exiger ñu daal di révoquer ki nga xamante ne mooy première ministre bi. Macky sax parce que normalement sax. bi mu ko defee candidat la ko waroon dindi en tant que premier ministre. parce que xam nga da ngay dañuy da ngay utiliser jumtuwaay yi nga xam ne moom lu gouvernement moom nga di ko utiliser di ko nit ñi parce que premier ministre boo ñëwee sax dañu xam ne premier ministre moo moo ñëw. ci ab euh, résolution fédération des libéraux bu département bu Pikine di invité nguur gi moo daal di respecté résolution de la commission d'enquête parlementaire bi nga xamante ne daal di nañ ko woote ca assemblée nationale ngir rek ñu statuer ci cas conseil constitutionnel mi ñu jàpp ne dafa ger